asalaamaaleykum euh, mbokku jullit yi asalaamaaleykum mbokku taalibe yi di delluwaat rek di leen ziar yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo seen télévision ma faatiwul Bichri di leen ziar yéen téléspectateurs yi waaye it di leen ziar yéen ñi ngeen xamante ni yéen internet yi di leen wax rek comme ni ñu ko diglante woon ak yéen rek fas yéene teew fii ci nga xamante ni mooy Poroxaan ñu àndoon ci ak yéen nag ci ay wàccaa yu am solo ak ñi nga xamante ni ñooy institut africain de santé Mame Diarra Bousso ci loolu sax nag ngeen ci doon ànd ki nga xamante xamante mooy soxna Astou Ndiaye fii nag ma wuutu ko fi man mi nga xamante ni maay soxna Fatou Cissé ci loolu nag la ñuy wéyandi rek di ànd ak yen ci li nga xamante mooy programme diggante Bichri TV ak ñi nga xamante ni ñooy institut soxna Diarra Bousso niki tey nag ñuy wéyandal rek liggéey bi ndax nag niki tey ñoom dañoo amal li nga xamante ni mooy ay consultation gratuite maanaam ngir rek taxaw ñi nga xamante ñooy askan wi waaye it ñi ay taalibe rek ñëw ci bërëbu sell bi rek ngir am ñaan ngir rek suñu borom bi mën leen koo nangul kon nag xanaa dañuy wéyandi rek ànd ak yéen ci biir ñu xool naka la ñuy amalee rek yëlee consultation ak ñan rek ñoo fii ñëw waaye it naka la fan la xayma bi daal daal di topp ak wér gi yaram gi rek fu mu toll fii nga xamante ni mooy Poroxaan di leen wax rekk ñu ànd. kon nag mbokk yi ni ñu leen ko digee woon rek yéen ñi nga xamante ni yéen a seen télévision ma faatiwul Bichri di ko seetaan rek ni ma leen ko waxee woon léegi rek fi mu ne nii ñu biir fi xamante ni fa la ñu la ñuy amalee li nga xam ne mooy consultation yi rek ci kaw sax ñu fas yéene séq ak ki nga xamante ni mooy soxna Mbiri Tall di ki nga xam ne moo yor commission médicale fas yéene laaj rek naka la ñuy amalee maanaam liggéey bi ak xayma bi daal fan la toll ak li nga xamante ni daal moom la ñu fas yéene dimbalee taalibe yi fi teew ak seen liggéey naka lay demee soxna Mbéri nuyu nañu ñoo ngi lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba bu wér a wér a wér di sant soxna jaara mu ñu fi indi di santaat waa yaas maam jaara bu wér a wér a wér liggéey bi nag comme niñ ko gisee avant la woon maanaam avant ñu ñëw Poroxaan ñu ngi woon ci lijjanti garab yi wàllum garab yi léegi comme ñëw nañ fii nag groupe yi moo desoon ak euh, li jëm ci wàllu liggéey bi ni muy doxee liggéey bi nag dafa amoon ay pàcc maanaam ay box yu bari la woon am na ñi nga xam ne ñooy gérer wàllum mag ñi ñoom bu mag ñi ñëwee ñi nga xam ne ñoo am juróom benn fukki at jëm kaw ñoom dafa am ñoo xam di jël en charge seen rang wu la pour bañ sonal leen am na ñoo xam ne ñoo yor xale yi ñi nga xam ne am nañ at ba fukki at ak juróom ñoom maanaam ñi ñuy wax pédiatrie ñoom ñooy gérer pédiatrie am na aussi consultation général maanaam ñëpp ñu ne ci diggante fukki at ak juróom ba juróom benn fukki at ñëpp ci benn pàcc lañ nekk am na aussi urgence yi maanaam li nga xam ne ay urgence comme ni ko ni di waxee rek urgence yi dañ leen jël en charge aussi am na tamit li nga xam ne mooy consultation gynécologique maanaam jigéen ñi nga xam ne dañoo ñëw leneen tax leen a jóg maanaam wàllum sëy wala leneen dañ koy gérer am nañ fi ay sage-femme yu ko mën a gérer am nañ tamit aussi ay médecin ñi ngi fii toog waa Samat ñoo ñëw di ñu jàppale ci liggéey pour gën a yombal liggéey bi aussi tamit am na benn comité pharmacie maanaam moo gérer lép li nga xam ne moo jëm ci wàllum joxe garab yi maanaam buñ jaaree ci consultation yi yi bindal dañuy dem foofu noonu jox leen garab yi wax leen nan lañ koy jëfe jëlee ba pare expliquer leen pour ñu gën a mën a respecter traitement yi wax leen lu ñuy mën a def pour mën a aar ci garab yooyu noonu maanaam defal leen ay kii daal ñaax leen pour ñu gën a mën a moytu lii noonu macha allah soxna Mbéri comme ni nga ko waxee rek léegi si biir loolu gis nañ ni maanaam tegal nga ñu lépp lu nga xamante ni moo leen fi tax a toog ak liggéey bi nga xamante ni moom ngeen nar amal ak mbokku taalibe yi teew fii ci Porokhane ci loolu est-ce que am na benn xayma bu nga xamante ni jot ngeen ko teg maanaam daal bisub tey jàppoon ngeen ni di ngeen am lii ci ay nit di ngeen jàppale lii ci ay nit di ngeen jox garab it lii ci ay nit est-ce que mën nga ñoo jox ab xayma boo xam ne daal jotoon ngeen ko teg ak xayma boobu fan la tollu waa ci xayma bi at mu jot daanaka mën nañ buñ pare wan ba def bilan daanaka daan nañ am lu plus de 100 malades daan nañ ko am ay urgence yëpp daan nañ ko am macha allah guddi gi sànq lañ commencé 15 heures lañ commencé mais macha allah gaa yaa ngi ci biti di xaar am nañ na ci biir ñu leen di jël macha allah daal ci luñ xayma ci yoon war nañu mën a jël lu mu ëpp ñaar téeméeri malade war nañ ko fi mën a jël incha allah chaque année loolu lañ daan def te chaque année day gën di yokku xam nga liggéey Sëñ Tuubaa naa ni malade dinañ gën a ñëw ñu gën leen a jàpp ndax ñun loolu jox leen garab bi te duñ fay dara dimbali leen ba ñu am seen wér-gu-yaram mën a matale daal loolu mooy suñu léegi. comme ni nga ko waxee léegi rek soxna Mbéri maanaam instant bi nii commencé ba 15h léegi ban waxtu ba ban waxtu ngeen fa yéene amal consultation pour ñi nga xamante ni dañuy ñëw ak naka ngeen leen war a taxawoo. Hmm, léegi ci loolu pour yombaloon liggéey bi ba élèves yëpp mën ci élèves yëpp mën a mën ci sant seen bopp nga defaroon quatre groupes maanaam ñeent yi nga xam ne ay ma élèves ñoo fa nekk fu nekk nag groupe bu ne am na ay médecins. am na ay niveau la daal par niveau am na médecin am na SF3 IE3 ba ñëpp macha allah dañ sant seen bopp léegi ci quatre group yooyu noonu comme ñaari barab lañ am benn barab bi fu mu toll nii 15 heures ba 20 heures ñu ngi fii nii maanaam mooy ñun groupe 1 bi 15 heures ba 20 heures ñu ngi ci dal ba léegi incha allah 20 heures ba 3 heures du matin aussi am na yeneen ñaari group yu ñëw jël suñu place maanaam benn groupe bi day dem ci dal ba beneen groupe bi ñëw jël suñu relais suba incha allah consultation yi c'est de 8 heures à huit heures ba quatorze heures benn group bi maanaam ñun ñi ñooy ñëwaat quatorze heures ba vingt heures incha allah ñaari ñaari groupe bi dañuy ñëwaat maanaam groupe bu ne di nga jàll ñaari yoon. ñëpp ci liggéey ñëpp ci sant seen bopp. Mhm. comme ni nga waxee soxna Mbéri est-ce que mënuñu ñëw tamit ci benn waxtaan boo xamee rek koy tënk ci tënk en tant que jeune ngeen nekk ay professionnels di doog a dugg si métier bi naka ngeen sentir seen bopp ci liggéey bi liggéey bi ngeen def surtout fii ci Porokhane di xam ne ay taalibe leen ñu nga xam lool ci jamono ji ñu toll. Mhm, wax dëgg yàlla laaj nga ma laaj bu am solo bu ma neex tamit parce que macha allah ku mel ni man école moo tax ma xam Porokhane bien vrai que murid la mais école moo tax ma xam poroxaan première année bi ngay ñëw ngay sentir sa bopp ci ngay gën a bëggee sax métier bi nga nekk parce que da ngay dugg ci santé nekk première année yow xamoo parce que dama goo stage mais il suffit que nga ñëw am benn aperçu da ngay dem ci terrain parce que da lay dundal dangay da ngay dund santé mais boo nekkee école di bind rek doo dund santé mais ci terrain bi nii nga mën a dundee vrai vrai santé te ñun ci lañ santé suñu bopp parce que dañu nekk à l'aise dañuy jàppalante te aussi dafa am benn élèves yi ñëpp ci la ñuy xamante première année bi duñ xam ki mooy première année ti mooy troisième année non bokk même bâche yi liggéey bi ñoo koy bokk macha allah daal dañuy tax ñu gën a bëgg lu ñuy def gën a bëgg santé gën a bëgg parce que dafa neex ngay dimbali nit ki dafa neex macha allah daal waaw ci loolu ñu lay delluwaat rek di la santaat bu baax a baax macha allah di delluwaat rek di rafetlu li nga xamante ni mooy seen liggéey comme ni ma ko doon waxee léegi rek da ngeen cee ànd ak waa Bichri TV ñu fas yéene ànd ak yéen ci lépp loo xamante activité la ma bëggoon moom ngay bàyyi surtout maanaam jamono ju ñu tool nga xam gis nañu jeunes yi ñu ci bëri maanaam xëy na ñàkk xëy am na ci maanaam est ce que tey jotul yéen ngeen jéem a def lancer benn appel par rapport yi nga xamante ni amuñu lu ñu def ñu mën a jéem a ñëw ci santé bi gën a mën a assister maanaam askanu Sénégal. waaw li may wax rek comme niñ ko waxee te sax loolu dafa gën a laal góor ñi maanaam parce que boo seetloo góor ñi néew nañ torop ci santé bi te soxla nañ góor ñi parce que dañ naan sante amul dara mais yàlla mooy faye te la fekk ngay dimbali nit ki loolu la yàlla da nga ciy am fay yàlla avant xaalis bi di ñëw di leen soñ leen bu leen bu kenn daw santé bien vrai que métti na mais loo ciy gën di dem di gën a am expérience di gën a bëgg sante bi looy gën di dem di gën a bëgg affaire yi di gën a am am ambition daal pour def liggéey boobu dama wax sama mbokk yi rek ñu ñëw ci formation bi parce que malade ci hôpitaux yi soxla nañ ñu parce que dañuy xalaat suñ mag yi war a dem retraite suñu yaay donc ñun jeunes yi ñoo war a nekk ñoo war a dem jël relais bi daal donc jot na tey ñu ñëw defi formation santé bi pour mën a dimbali Sénégal ëllëg taxawu Sénégal daal en matière de santé. kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, soxna mbiri di la wax rek euh, xanaa di la ñaana yàlla mi nga xam mooy kii maye mu teg ci yow loxo jàppale ci li nga xamante ni moom ngay def ak sa morom yëpp kon nag euh, ñoo ko gisandoo mbokk yi ak xarit yi rek ñu teewaloon leen fii nga xamante ni mooy Poroxaan ànd ci ak institut Mame Diarra muy institut de santé amaloon fii li nga xamante ni mooy ay consultation ñu leen di wax rek jërë ngeen jëf nii rek lañ ko amale woon ak fii di leen ñaanal yàlla jàmmate di ko saako ci yéen ñaana leen ñaanal ak jàmm ak salaam كونك mbokk yi ñoo ko gisandoo comme niñ leen ko digee woon a fas yéene ànd ak yéen ak li nga xamante ni moo xew fii ci Porokhane waaye it ñi nga xamante ni ñooy institut de santé Mame Diarra Bousso ñu fas yéene ànd ak ñoom ci seen consultation ginnaaw nag bi ñu ci seen dalluwaay bu njëkk boobee nga xamante ni ñoo ko déggandoo te soxna mbir yi wax ñu ko dañoo seen ñaareelu bërëb bi fas yéene xool la ñu woyalee ak naka rek ñi nga xamante ñooy mbokku taalibe waaye it ñi nga xamante ni dañu tawat ñu dem ci biir rek fas liggéey bi ak euh, yu ni mel. su su ti xaat walam ya leen ko waxee rek mbokki ak xarit yi nga xamante ni yéenay lu seen télévision Mafatihul Bichri dañu ñëwaat rek si ñaareelu tànt bi nga xamante ni moom la institut africain de santé Mame bu Bousso amalaat fii rek fa yéene wooye li nga xamante ni mooy ay consultation gratuite ngir xool rek naka la liggéey bi tegoo ak ba xam xayma bi fan la tool rek dañu ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy docteur Babou docteur Babou nuyu nañu la. waaw asalaamaaleykum waa Bichri maa ngi leen nuyu bu di leen ziar. docteur baabu comme ni niñ ko waxee léegi rek ci suñu biir introduction dañu bëggoon a xam maanaam consultation bi nga xamante moom ngeen di ci Porokhane maanaam lan ci lan ak lan ak lan ngeen ko teg ak lan la porté. waaw bon comme ni ma ko maa ngi nuyuwaat asalaamaaleykum waa Porokhane di nuyu waa télé bi euh, di nuyu aussi euh, madame Dieng mi nga xam ne tey moom moo waral lii ak de passage aussi euh, doomam muy madame Mboup waaw consultation bi li ko waral mooy ñëw jàppale nit ñi rek parce que xam nañu événement yu mel nii. day bëri na ñoo xam dañuy ñëw te des fois sax duñu wér wala dara mais ñu ñu ne dinañ porter volontaire ñëw jàppale leen ci consultation bi jàppale leen ci bis bi pour ñëw daal képp koo xam am ngay jafe-jafe luñ ci mën rek ñu ñu jéem ci apporter li nga xam moom lañ ci mën pour que daal vraiment euh, yàlla def nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. comme ni nga ko waxee maanaam seen consultation yi ci lan lan maanaam la porté ci yan faj ngeen maanaam ngeen fas yéene ànd ak askan bi ci lan ngeen leen war a taxawoo. waaw xam nga consultation bi ci lim porté moom d'habitude euh, comme ñun ñaari fan lañ fi war a def am na ci yoo xam ni euh, moom nga mën a def sur place am na yoo xam mënoo ko def fii nii bon ñun euh, consultation ci kaat ak lañ ko porté ci gériatrie maanaam ñi nga xam ñooy xool mag ñi xam nañ ni mag moom déjà rek feebar la. waxtuma laa nga jóge dëkk ba dëkk ñëw di def euh, nekk pèlerin maanaam nekk koo xam da ñëw di màggal si ci ñooñ lañ ko lañ ko lañ ak aussi ñi nga xam mooy xale yi tout tànk yi mu ñu ngi wax pédiatrie am na consultation en pédiatrie aussi à part euh, gériatrie ak pédiatrie bi muy xale yi ak mag ñi am na tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci diggante bi parce que feebar moom muy xale muy mag ñëpp la mën a dal moo tax tamit am na ñoo xam ne ñuy wax consultation médecine générale euh, bokk na xam ni bon génn nañ âge yu ndaw ñi mais tamit àggaguñ ay mag noonu maanaam amaguñ 60 ans à part loolu aussi ñi ngi def consultation gynéco parce que ni ma koy waxee rek feebar moom ak nit ñi xër nañ xër goo xam ni genre événement yi duñ ko mën a tardé mën a des fois euh, jigéen ñi mën nga ci ñoo xam ne ay jigéen ñu wérut wala ñu demee noonu ñëw indaale ay jafe-jafe moo tax tamit euh, boole nañ ko ci suñ consultation bi ci tënk daal ñeenti axe yooyu noonu ñeenti poste de santé yooyu lañ fi am mooy gériatrie maanaam mag ñi pédiatrie xale yi consultation médecine générale moo ñi digg bi ak ñi nga xam ne mooy gynécologie maanaam pour xool jigéen ñu wérut yooyu. macha allah euh, docteur Babou comme ni nga ko waxee rek ci loolu yaakaar naa ne ba ngeen a waxee rek da ngeen di ñëw fii teew fi rek fas yéene dimbali nga xam ne ñooy askan wi ak taalibe yi rek yaakaar na am na benn xayma bu nga xamante ni rek jot ngeen ko def est-ce que mën nga dikkaat tuuti rek ci xayma bi nga xam ne jot ngeen ko maanaam ni ki tey rek ñaata ngeen yaak ngeen teg rek ngir rek fas yéene koo faj ci ay doomu aadama waaw tey de moom wax dëgg yàlla ci ngoon gi lañ commencé bi ñu añee ba pare mais su ma juumul euh, war nañoo commencé dugg sang parce que bañ commencé léegi yàggul mais bi ñuy ñëw rek déjà di installé wu fekk nañ fa ay nit ñu bëri te yaakaar naa événement yu mel nii moom bi nga ñëw ñi ngi fi fekk boo accès rek presque information bi day jàll parce que nit ñi tamit même bu dul màggal gi wala yooyu dañu soxla faju et puis zone yu demee dafa xaw a de trop moo tax euh, des fois nit ñi bu ñu gisee genre événement yi dañ ciy profité moo tax ñun ñu ne dañ ko def benn jour dañ koy def avant gam avant màggal bi def ko bisu màggal gi def ko tamit euh, ginnaaw bisu màggal pour que daal vraiment mën a faj le maximum de personne pour que daal ñu mën leen apporter ñun suñu wàll ci li nga xam ne mooy màggal gi ak ci li nga xam ne ci la muy côté santé bi mais yaakaar nañ ni moom nit ñi dinañ gën a bëri donte instant bii nii xaw nañ takku tuuti tuuti. ci loolu docteur Babou est-ce que mën nga wax ñi nga xamante ni ñoo lay teewlu maanaam euh, yan horaire ngeen teg rek pour ñi nga xamante ni ñooy seen ay euh, malade voilà waaw euh, horaire yi nga xam moom lañ teg parce que tey ñun euh, man maay coordonnateur national benn association bu ñuy wax Samat waaye man damay wax tey ci bisu euh, institut Maam Diarra parce que wax dëgg yàlla bi ñëwee dañu délégué lépp bàyyi ko suñu loxo kon ñun Samat amatu fi mais institut Maam Diarra moo fi am. léegi nag bi ñu ñëwee indaale nañ ay médecins ay infirmiers ay sages-femmes d'État léegi ñu répartir ko en quatre groupes comme ñaari poste de consultation lañ am pour que affaire yi bañ a am rupture yooyu dafa am ñoo xam dañuy tey lañ commencé 15 heures. beneen groupe bi ñu ngi ci poste de santé bële na le pour que ñoom ñooy commencé de 15 heures à 20 heures ñoom dañuy jël pause subitement beneen groupe bi ñëw continuer de 20 de 20 heures à 3 heures du matin ñoom aussi ñu arrêté le lendemain ñeneen ñi jël aussi day am ay garde amul permanence même ñi nga xam ne ñooy wàcc 3 heures du matin suñu wàccee dafa am beneen équipe boo xam dañuy ñëw de garde tamit pour dire que les consultations se passent 24 heures sur 24 maanaam ba ba ñuy ñii buñ ñëwee euh, heure bii buñ demee ñeneen ñi ñëw maanaam constat bi noonu lañu ko bëgg a tënkee daal c'est 24 heures sur 24. waaw docteur Babou comme ni nga ko waxee rek ci loolu rek dama bëggoon dama bëggoon a ñëw ci ab laaj bu nga xamante ni xëy na dafay xaw a génn tuuti ak cadre bi maanaam yow ban ban ban naka nga gisee maanaam lëkkaloo bi nga xamante ni lëkkaloo nga ko ak institut Mame Diarra waaye taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxawoo ay jeunes yu nga xamante ay professionnels lañu war a le terrain fas yéene ànd ñi nga xam ne ay malade lan muy métier bu nga xamante ni dafa xaw a sensible trop naka nga ko gisee. voilà bon ni ma gisee lëkkaloo beeg institut Maam Diarra wax dëgg yàlla ci kontaan di ci kontaan bu baax a baax a baax di ci yëg suñu bopp lu tax ñu ci suñu bopp parce que ñun dañu am benn association bu ñuy wax SAMAT social assistance médicale action et développement di def fépp nag ci ci àdduna bi rawatina Sénégal yàlla def ñu dajeek euh, suñu yaay ju baax ji muy euh, soxna madame Dieng moom tamit mu lëkkaloog ñun ne daal bëgg na tamit ñu koy jàppale ci bés bu demee nii ñun bii mooy suñu première édition euh, pour ñu ñëw fii nii Porokhane def fi couverture médicale mais vraiment daal kontaan nañ ci lëkkaloo bi nga xam moom lañ lëkkaloog moom parce que permettre nañu ñu ñëw def li nga wax xam ni ci lañ nekk jàppale nit ñi donte yombul te jour ouvrable hôpital la ñu waroon fekk mais vraiment def nañ lépp ba am autorisation pour mën a lu ñëw fii bi ñëwee tamit comme ni ma ko waxee rek wax dëgg yàlla gën nañ ñoo ñaax pour ñu gën a yokk yokk jom parce que bi ñëwee lépp dañ ko jël teg ko suñu loxo rawatina man mi xam jiite te bu leen neexoon tamit mënoon nañ ma xaw a yemale fenn fi rek wala ñu xaw a yemale samat fenn mais dalal nañu wax dëgg yàlla jox ñu lépp teg suñu loxo côté médical bi et vraiment gis nañ suñu bopp soreeguñ ci lëkkaloo bi mais am nañ ci yaakaar bu baax a baax que ne leneen lu dul màggalu poroxaan wala feneen foo xam ni war nañ fa mën a dem ñaan nañ yàlla ànd koog ñoom aussi comme li nga wax tamit muy euh, temps bi c'est vrai temps amul mais ñun dañ ne social moom ku nekk daf ko war di def parce que nit ñi jafe-jafe santé dafa am feebar yi bëri na alimentation bi demetul noonu kon nit ki li nga mën rek mooy fi nga xam ni fa la nit ñi dajee muy événement yu mel ni jéem a gis assez de personne pour mën leen a sensibiliser maanaam mën leen a wax li nga xam ni moom moo leen di jàppale ci wér-gu-yaram pour que ëllëg buñ delloo seen kër yi ñoom it ñu mën ko jàllale ba jafe-jafe euh, jàngoro yi doomu jàngoro yi wàññeeku. en tant que acteur euh, docteur baabu naka nga gisee maanaam euh, ndaw yi nga xamante ne institut Mame Diarra mi ngi leen di former. waaw euh, ndaw ñi nga xam ni de gis naa leen fii vraiment avant fii sax parce que ñun am na benn journée boo xam ni le 24 passé ñu ngi ko doon def benn dëkk bu ñu wax Marène boobu la njëkk a ñoom mais wax dëgg yàlla waxuma sax formation bi parce que nit ki mën nga ne ci dara parce que santé dafa xaw a sensible boo ci nekkee. dëgg la da nga da nga da nga war a am noo mel mais sa xol bu bu ubbeekul ci loolu rek du ñëpp ko mën daal mais ñoom wax dëgg yàlla macha allah depuis bi ñu fi ñëwee ba léegi gis nañ engagement bi ñu am dévouement bi xam nga ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci vraiment di di di di consulter et puis et puis dara vraiment laajuñu dara maanaam waxuñu fii xam ne dafa tàng ñoom sóoraalu ñu tàngal waxuñu dara vraiment gis nañu daal tamit euh, te aussi am na ci aspect boobu naa xaw a tuuti muy que li nga xam ñi ngi jëlee ay ñoo xam ne dañ doon jàng alxuraan rek pare ñu jël leen ne dañ leen di former ci santé parce que ki nga xam ne jàngul alxuraan wala jàngul dara loo xam ni ci yoonu yàlla la day def lu baax santé waxatuma la ko xam da koo jàng vraiment ñoom yoon bi ñu nekk foofu la parce que tamit bu fekkee yàlla def la nga nekk institut coranique jàng ko ba pare wëlbatiku dellu ci école formation di fa jàng yaakaar naa loolu boo góorgóorlu ndaw rek vraiment yàlla dina la jàppale bu baax a baax a baax a baax comme ni nga ko waxee rek euh, docteur baabu ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci maanaam li nga xamante ni rek jot nga ko fi teg maanaam ci xalaat bu rafet ak euh, lëkkaloo bi nga xam ne lëkkaloo nga ko ak euh, institut Mame Diarra ñu bëggoon rek nga jox ñu sa kàddu bu mucc par rapport ak activité yi nga xamante moom ngeen di organiser fii ci Porokhane. waaw kàddu bu mujj bi rek d'abord dama koy commencer ci remercier leen yéen parce que tamit peut-être santé yi ñoo fi nekk di faj rek mais yéen tamit xam nañ li ñu ñu daj li ngeen di daj ñeneen sax duñ ko daj parce que journaliste aussi dafa métti. affaire communication dafa sensible tamit vraiment ñu ngi leen di ñaanal yàlla tamit ci bis bu màgg bi nga xam moom lañ jub si yàlla jàppale leen bu baax a baax a baax ba coono bi ngeen di daj tamit yàlla gën leen a jàppale bu dee côté bi nga xam ne moo ñu fi indi tamit ñu ngi sant bu baax a baax a baax madame Dieng encore une fois ñoom madame Mbuub ak madame Simaxa ñi nga xam ñëpp aussi ñoom lañ à travers ñoom lañ mën a agsi fii tey ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax seen institut bi gën a jëm kanam gën a gën a gën a gën a gën a am am valeur aussi vraiment yàlla teg ci loxo màggalu soxna su baax si nga xam tamit ci lañ jëm vraiment mu am muccuwaay boo xam daal wax dëgg yàlla as institut bi dina dem au niveau international. ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di ñaan yàlla aussi mu gën a dëgëral suñu partenariat pour que ñu mën a dem feneen fudul fii vraiment kontaan nañ bu baax a baax ci ñëw fii tey. kon nag ñoo ko déggandoo ñuy delluwaat rek di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni mooy docteur baabu ñu àndoon ak moom rek mu mu tegal ñu lépp loo xamante ni rek activité la muy institut Mame daal koy amal fii ci Porokhane ak màggal gi nga xamante moom la ñuy dëgmal ni ki moom lañ doon ànd ak yéen rek di leen wax jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam yéen téléspectateurs yi waaye it yéen ñi nga xamante ni yéen internet yi di teewlu maanaam lépp loo xamante ni rek activité la fii ci Porokhane ñu leen di wax jërë ngeen jëf àdduna mënu ko xawlim tuwal ginnaaw oh, bin malakin mënu ko